wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abijaayi xayri ma nabaat asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi eh, Touba ca kanam nooru daare ni mbokk yi ñuy seetaan ci biir ak bitim réew mbokk yi seetaan Bichri TV Touba Monde bi TV eh, groupe communication xasida online waa sous commission programme bu Touba ca kanam nooru daare ni waa su commission programme bu su commission diaspora bi ànd fas yéene ànd ak yéen ci liggéey cheikhul xadim bi nga xam ne mooy tubaa ca kanam nooru dara ni mbokk yi xam ngeen ne bu ngeen gisee ñi ma nekkal da ngeen xam ñooy ñan ñooñu ñooy mooy sous commission leeral kuréel gi nga xam ne ñaan bi Serigne Touba ñaanoon ñoo fas yéene leeral dëkk bi ba képp ku ne ci ñoom foo nekk nga mën a am sécurité kuréel boobu nag kan moo ko jiite Serigne Khadim Dieng expert ànd ak équipe bu am solo bi mu àndal ci taxawaayu am solo mu mel ni njëkkoon nañu am benn quota ci wàllu làmp lu dem ci 1960 lampadaire deuxième partie bi bi mu ñëwee nekk 3000 lampadaire troisième partie bi nekk 5000 lamp mbokk yi xam ngeen ne Touba wet yu bari leer na nañ ngir lan équipe bu am solo bi ñu àndal ci liggéeyal Cheikhul Khadim waaye 5000 lamp yooyu jëloon nañu 3000 lampadaires yi bi ñuy bëgg a magal def ci liggéey bu am solo ci biir corniche bi mu mel ni kon fi ñu toll nag li des mooy 2000 lampadaires loolu ngir ñu xam 2000 lampadaires yooyu fan lañ ko war a yóbbu ndax ci benn quartier lañ ko yóbbu ndax pencum kër sëñ diw lañ ko yóbbu ndax dañ koy jox kenn ci waa Touba ci kanam ngir ñu am ci ay leeral dañuy ànd ak Serigne Khadim Dieng expert Serigne Khadim Dieng 2000 moom la ñu war a séddale tey ñoo ngi fii ci Daaru Rahman wala Daaru Manaan euh, numéro 2. nan ngeen di séddale lamp yi ak it nan ngeen di fexe ba waa Touba ci kanam ñi nekk penku dañuy joxe mille francs ñi nekk sow joxe mille francs ñi nekk ganaar joxe mille francs ñi nekk Saalum joxe 1000 francs nan ngeen di def ba bu ngeen jógee ñëpp gis seen bopp ci li ngeen def sëñ Xaadim jërëjëf sëñ Mbaye Tène maa ngi nuyoo bu baax baax di nuyu waa Touba Kanam gépp di jël nuyoo bi di koy teg ci soxo ci loxo sëriñ Abibu di nuyu jëru ñëw sëriñ Alaat Abibu di nuyu monsieur le président Abdou Fatah Gueye di nuyu équipe bi nga xam ne ñoom laa àndal rawatina waa commune bi nga xam ne ñoom ñoo nekk suñu wet ñu ànd ak moom nag ci àndeen goo xam ne àndeen gu am solo la àndeen goo xam ne wax dëgg fi yàlla am joxe seen lépp ndax heure la ñuy ñëw di wàcc heure euh, di sawar nag ci laaj bi nga xam ne moom nga ñu laaj tey muy ci 2000 lampes yi nga xam ne moom lañu war a def ci biti corniche mu nekk 2000 yoo xam ne nii mën naa ne ci ak dégg mën naa tuuti lool waaye bu ñu ko seddalee dinañ xam ne takku na lool ah, ginnaaw loolu nag Touba Ca Kanam ñëpp xam nañ ni mu baaxoo def mbir mi moom bu ñëwee ah, duñ ko jagleel kenn rek duñ ko jagleel waa Touba Kanam wala ñu jagleel ko kër Serigne nangam wala ñu jagleel ko pencum nangam déedéet mbir mu mu ci mën a doon rek dañ koy toog waxtaani ko Touba Ca Kanam moom pencoo lañ ko xamee léegi nag bu ñu toog toogee waxtaan xool dëkk bi si nga xamee ne leeraay ga manqué na ko su boobaa ñu xool installé ay ay ay ay ay ay commission wala ñu naan ay groupe premier groupe bi moom day nekk groupe boo xam ne groupe recensement la beneen topp nekk groupe boo xam ne groupe installation la léegi nag loolu pour moment nu équipe bi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllum recensement ñoom dañuy def toog def réunion ñu waxtaan ñu xool jël quartier sàngam ñu peese ko buñ ne nañ jël ndaamatu ñii ne nañ jël xayra ñii ne nañ jël sura ñii ne nañ jël paaleen ñu laaj biir mbooloo mi ñi fa ñëpp bañ dëppoo ci lenn ci loolu ñu dëppoo nag ki la ñuy teg toog ko waxtaane ko xool ba xam ndax méngoo naag li nga xam ne noonu la Touba Ca Kanam di doxee suñu xamee ne méngoo na su boobaa ñu mën a séddale kotaay nag mooy kayit yi nga yaakaar naa moom nga yor euh, su ma soo ma ko permettre ma man cee indi ay leeral yoo xam ne nii nit ñi dinañ ci gën a mën a am ak gindeeku mm-hmm. euh, ginnaaw loolu nag loolu bu amee mm-hmm. buñ ko seddalee ba pare mm-hmm. mooy nii nga xam ne moom laa koy waaje limee muy daaru marnaan 1 daaru marnaan 2 madiana xayra daaru minam jannatu gaarasu daaru aselem guéde pulaaya looyeen touba lansar ndaamaatu 1 ndaamaatu 2 ngiraan yeen sexaw ga kër sëñ ñaan jóob saam sëriñ baara xuraja ci loolu nag bu ñu ko defee ba tënku ci aw kayit nii ba pare ci lañ ko yëkkatee jox ko équipe recensement mm-hmm. équipe recensement nag moom buy dem mm-hmm. du du ne kenn maa ngi ñëw day jékki-jékki dugg ci benn koñ mm-hmm. comme tey jii quartier bi nga xam ne moom lañ xëy lu ci mel ne daaru euh, Marnaan 2 bi ñu fay ñëw xamuñu fi kenn dañoo ñëw ñu tàmbalee ci peggu tali bi recensé nag jëm ci biir bu ñu recensé ba pare bu ñu xëyee dañuy jox équipe installation ñoom ñoo nekk nii tey jii ñu def préparation bi ngir fas yéene dugg ci koñ bi fépp foo xam ne équipe recensement àggoon na fa soo boobaa ñu mën faa def ab lampe Serigne Khadim kon mu mel ni eh, gis nañu ne séddale ngeen lu mel ni 2000 eh, lampadaires yi ci lu tolloog fukki quartier ak juróom-ñaar ndax mën nañu xam quartier yooyu quartier bu nekk ñaata lamp lañ fay def. waaw quartier yi dañoo tolloowut. Mhm. ndax quartier bi ñu nekk tey jii 150 lamp la am beneen daaru ma naan gi ci topp 150 lamp la am mhm. euh, Madiana 200 lamp la am Euh, ndaamaatu un ndaamaatu de am deux cent deux cent lampes yeneen yi ma lim yëpp ci ginnaaw yooyu yëpp cent lañ leen lañ leen lañ leen féetale waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw kon neel ñu xam waaw ok dem ñoo tolloo. waaw mooy yeneen yi ma limoon léegi nii waaw. yëpp cent lañ leen defal ndax boo xoolee nee naa ñaar yi ñoom ñoo ci am 300 lamp muy Daaru Marnaan 1 Daaru Marnaan 2 ñoom ñaar lañ boolee benn quota muy 300 lampes bi ñu ci jógee Madiana médiana lañ am Madiana 200 lampes lañ ko jox euh, xayra 100 lampes la am. daaru minam sans daaru minam 2 sans lamp la am jannatuma waa san la am gaarasu daaru sans la am asilam sans la am gede sans la am pulaye sans la am looyeen sans la am touba lansar sans la am ndaamaatu ndaamaatu 2 la am ngiraanin sans la am sexaw ga sans la am kër seen ñaan jóob san la am saam sëriñ baar xuraja san la am waaw lii mooy 2000 lamp yi nga xam ne moom la ñu war a def ci biti corniche bi waaw sëñ xaadim gis naa fi ñoo xam ne ñi ngi sol tenue yu bleu ak ay casque ñooñu ñooy ñan ak seen diggante ñoom nu mu demee. ñooñu mooy ñi ma waxoon léegi ci tàmbaliment bi rek mooy waa commune bi ñoom yàlla def na ne bi cent lamp yi ñëwee ba léegi ñu nag ñoom ñi ngi ànd ci liggéey boo xam liggéey bu am solo la ndax équipe bi nga xam ne moom la ñu booleel wax dëgg fa yàlla neex na defal ndax buñ ñëwee dinañ ñëw heure dinañ ànd waa Touba ci kanam dinañ kaf dinañ ree deetu tout itam doole jëpp dañ koy jël def ko ci biir Touba ba boo ñëwee sax da ngay jàpp ne ñii moom duñu ay ay élément commune élément Touba ci kanam lañ ndax commune ak Touba ci kanam benn lañ kon nag fu ñu mën war a àndandoo puus di dem rek ko a gën a jëm ci kanam kanam Touba Touba mën a jëm kanam ndax suñu moom mooy tax ñu bëgg ñun mën koo def suñu àndoo booloo rek doon benn lépp loo xam ne bëgg nañu ko liggéeyal Serigne Touba ci dëkk bu sell bi dina yomb ñu mën ko def te duñu am benn jafe-jafe mm-hmm. te loolu mooy ànd bu rafet bii nga xam ne moom la moom lañ jërëjëf sëriñ Khadim Dieng expert loolu mooy ànd bu bi nga xam ne moom la wane euh, dañuy daal di jàll ci ki nga xam ne mooy sëriñ Mbacke euh, Dia sëriñ Mbacke Dia euh, gannaaw boo xamee ne Khadim Dieng moom mooy président sous commission mais ci liggéey bi daf ci am responsabilité bu am solo boo xam ne d'après compte bi dégg nañ taxawaay yu am solo yi sëñ Mbacke tey bu ñu jógee fii nii fan lañ war a jëm ci wàllu liggéey bi beneen biit mooy équipe bi ngeen àndal ñaata nit lañu ak it yan taxawaay la am ci liggéey bi. salaamaaleykum wa rahmatullah noo ngi ziar ba sañ mbay di la nuyu du nuyu waa Bichri du nuyu waa Touba ca kanam gépp comme ni ko président waxee sëñ Xaarim Jeng expert liggéey Touba ca kanam moom laaj murid lu ñu am la def fuñ xam moo tax euh, niñ koy séddalee euh, séddale bu maanu la pour éviter jóge Daaru Minam dem Touba Njaareem wala jóge Touba Njaareem dem Sexaw ga dañuy topp quartier yi ni ñu dendee Euh, ginnaaw installé nañ biir corniche ba noppi ba ñuy génne biti corniche bi tamit dañoo topp ci quartier bu sës ci biti corniche bi fëleel dem bu ñu jógee foofu dem ci beneen mais duñ duñ ko coqet coqet maanaam jóge fii dem fële wala kenn duñu woo ngir ñu ñëw monter la monter la monter la lampe bi daal. Mm-hmm. noonu la installation bi të të tëddee su mu su mu jëmu loo nga doon laaj. Mm-hmm. léegi léegi bu ngeen di jóg nii dafa mel ni gis nañ fi camion nacelle am ngeen ay grimpeur. gis na ñeneen ñoo xam na ñu ngi semblé lii lamp yi nan ngeen def ba techniciens yi euh, mën a bokk liggéey bu mel ni ngeen man ko ànd di ko liggéey yéen ñëpp ensemble. waaw euh, liggéey bi moom boo xoolee euh, jafewul ndaxte comme nu seriñ bi doon wax rek xool yu nangu moom moo gën tool yu nangu mm. te yàlla dogal na ne boo xoolee su commission leeral mm. ay moins de 40 ans rek ñoo ci nekk. ay ndaw képp ñoo ci nekk mm. bu ñu xëyee. ñun ñëpp dañuy dañuy jugandoo compliqué wul amul coordination bu compliqué. Mm. dañuy tase euh, li jiitu loolu xam nañ fu war a xëy ndax président mi ngi loolu woon leeral léegi ndax ñaari équipe la daa am équipe de recensement am équipe boo xam ne mooy installé mm. équipe boo boo la bu guddee ñëw daaru mi nam exemple xool zone yi lëndëm yi mu marqué ko euh, fekk ñun am nañ suñ benn élément bu ci àndoon mm. dañu koy wax ñun bu xëyee foofu mooy nekk quartier général bi foofu la ñuy tàmbalee dox dem euh, ndaw mi ne moo nekk nii yàlla dogal na ne Touba ca kanam moom lépp li muy dox day bàyyiwaale xel mesure de sécurité bi moo waral nga gis ma ni ma geetroo nii donte duma ci dara waaye euh, ab yor naa gilet yor naa casque mhm. yor sol naa ay dàll sécurité mhm. yor naa timit ay gants mhm. ngir courant moom yàlla dafa dogal ne boo ciy dem mhm. dafa war a am noo ciy demee ñun ñi nag yàlla dafa dogal ne ñun ñoo dañuy dañuy dañuy superviser nii rek mhm. waaye dañoo ànd ak ay techniciens yu qualifiés yoo xam ne mhm. ku ci nekk lii mooy say liggéey nga am ci say diplôme ñooñu ñooy yéeg ci courant yi ñooy installé ndax mën nañ am ci ñooñu kenn mu mën ñu leeral liggéey boobu ñoom nañ koy defee bien sûr mun nañ ci mun nañ ci mun nañ ci am kenn am na ku ñuy wax euh, sëñ Tako Euh, mi ngi ci liggéey bi. moom loolu la loolu la loolu lay liggéeyam. après dinañ ko jot dinañ ko jot après. nga mu leeral la dëgg dëgg dëgg ni ñu ciy ni ñu ciy liggéeyee. Mhm. Mhm. Euh, yi kon mel na ni rek ni ngeen ko gisee nii euh, am na ku ñu jàkkaarloo nag muy Aliou taalibe Cheikh yow looy def nii. waaw man de maa ngi nuyu waa Touba ci kanam Nourou Daara nii yëpp di sant Serigne baax a baax man ñu ngi nii ci lamp yi fi mu toll fas yéenee xëy li ngeen gis may def nii mooy li nga xam mooy connecté lamp yi sambale ko takkal leen ko euh, câble de euh, Senelec bi ak connecteurs yi bu defee ñoom bu ñu demee ci kaw rek mooy faciliter seen liggéey day ñëw rek xool phase yi nga xam fa la ñuy branché pour branchement bi gën a yomb ci ñoom ko deful fii suuf ñoom ñu dem ba ci kaw bu demee ñoom day tardé liggéey moo fi mu toll nii ñun ñi nga xam ñoo nekk cadre général ñooy sosoo lii quoi loolu la ñuy liggéey fi mu toll soo gisee may xooli fii nii noonu lañ koy defee après takk ci connecteurs yi jox leen ñoom bu ñu yeggee si kaw rek dañuy jël phase takk mu jeex benn yoon mbokk yi kon gis ngeen rek loolu mooy ubbite jotaay bi nga xam ne mooy tey lancement wu euh, li nga xam ne mooy deuxième tranche bi nga xam ne mooy 5000 lampadaires yi nga xam ne war nañ ko def ci euh, biti corniche bi defoon nañ mille ci biir war a def 2000 euh, ci biti corniche bi kon ni la ñuy tàmbalee léegi dinañ ànd ak ñoom nag incha allah ci liggéey bi daañu leen fekk ci barab yi ñu nekk grimpeur yi ñiy monter lampe yi kenn ku ci nekk liggéey bi ngay liggéey ngir ñu mën a xam ne liggéey bi ñu def dafa am solo mu mel ni kenn ci ñoom muy waa commune bi tamit ñoom ñi nga xam ne ñoom it ñoo ñoom ñoo ànd liggéey bi euh, sama nijaay baal ma nga jóg taxaw wala wala ma fekk baal na toogal sax toogal ma ñëw fekk la foofu dafa mel ni ba léegi rek kon ñu ngi ci liggéey bi kenn ci waa commune bi noo tudd. man de maa ngi tudd Serigne Gueye nekk élément commune ñu ñëw fi ci ndigalu monsieur le maire Abdou Lahad Ka. ngeen di liggéey ak waa Touba ci kanam. waaw ni ñu liggéeyee moom comme daanaka ñi fi jaar xaw nañ ci expliquer yu xam na jëruñu ñu fi ci dellusiwaat waaye ni ñu liggéeyee saa bu ñuy équipe bu commune bi ñëwee moo xam fekk nañ fi personnel bu doy moo xam fekk ñu fi personnel bu doy ñaari nasal yi ñu yor muy nasalu commune bi ak nasalu Touba ca kanam équipe yi dañuy tas ndax euh, su lu néew-néew six personnes daañu xëy si six personnes yooyu yëpp ay techniciens yu lañ yu xam ne commune ñoo leen recruter. Euh, saytu leen ba at yi yëpp ñoo yore éclairage public bu dëkk bi hmm. bi Touba ci kanam ñëwee it monsieur le maire wax ne euh, comme liggéey bi liggéey Serigne Touba la képp ku xam ne kii ne yaa ngi liggéey ci dëkk bi euh, liggéey Serigne Touba la kon kenn ku ne da cee war a dugal sa loxo hmm. moo tax waxtu bu ne buñ fi jëmsee dañuy wax ne liggéey Serigne Touba la boo xam ne bu ngeen demee ànd leen ko ñoom ñoom gën a rafete ngeen jàppandoo àndandoo nekk benn bu ko defee équipe bi yëpp jaxasoo duñ tànn oto commune duñ tànn oto mairie oto buñ jot yeeg ànd monté ko comme niñ ko euh, yoon santaane comme ni ko euh, électricité ak éclairage public santaane nga xam ne réseau bi yëpp ñëpp ñi ci yéeg xam nañ lan mooy réseau ba suñu yéegee benn problème boo xam ne bii ne bu mën a andi ay conséquences la ci wàllu lamp yi wala clients yi nga xam ne bii ne dañoo abonné ci biir réseau bi duñ mën am benn jafe-jafe yooyu yëpp dañ koy respecté liggéey ko liggéey boo xam ne liggéey bu technique la liggéeyu xam-xam la liggéeyu dal la ndax courant moom képp ku koy liggéey mm. nit ku war a am dal nga war a doon ndax waroo koo liggéey ci sorxa sorxa waroo koo liggéey ci làmbatu mm. waroo koo liggéey ci lu xam ne mm. da ngay tatoon na rek de dem da fa doon war a doon boo xam ne bii na loo xam la teg ko ci ay norme bu ko defee benn jafe-jafe du am macha allah ñi sant nag waa Touba ci kanam bu baax a baax ndax wax dëgg àndoon noonu lañ nekk nañ benn bokk ndey bokk baay ñun ñëpp xam nañ ne commune ba ak Touba ci kanam ñëpp benn dañ ñoo composé Touba ci kanam ñoo composé commune bi macha ñu sant ñëpp kon mbokk yi li moo nekkoon rek jotaay bi nga xam ne mooy ubbite jotaay bi ah, ñu ak nag Serigne Mor Mbaye eh, Bichri TV di leen jog di daje ci kanam incha allah ci yeneen i barab wasalaamaaleykum wa rahmatulah. wajalilaay mi abijaayi xayri manabat